yal nañu yàlla may kendalug jàmm di ko sant buur bi tabaraka wa taala ci xéewal ya jeex ya nekk fa moom mu di ñu ko dottil saa ne fekkee ba ñu fekkee di bés bi tey mu doon xéewal ya nekk fa moom waaye mu baaxee ñu ko ba tax na mu koy won ci téere ba ñu wàccee suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu di ñu wax ci téere bi ci suratul ibrahim wa aataakum kullu ma sa'altumuh mooy yàlla mu ngi ñuy wonne moo ñu jox lépp lañ ko ñaan lépp lu ñu soxla fa moom yàlla buur yàlla nee na jox nañ ñu ko moo tax mu ne ci téere bi ne wa ataakum jox min kulli ma sa'altumuuhu ci lépp la ngeen ka ñaan ba tax na wa in ta'uddu ni'matallahi bu dee da fi nekk naan da ngeen di lim xéewalu yàlla yi laa tax suuxa ngeen ko dajal du ngeen ko matal xanaa du rek dafa fekk ni inna li insaana naka doomu aadama bi de dafa làmboo ñaari jikko ya ko yàlla moo ñaale te moom la ñu wax ci njeexantalu aaya bi mbindaafoon bi di doomu aadama jikko bu njëkk ba mu làmboo yàlla ne la zalumun da ko ci boppam saasu ne waaye kafaar da di aji weddi xéewalu yàlla ba ko yàlla xéewalal saasu ne da koy salfaañe da ko sant ñu war a mën a doyloo ci na doomu aadama bi dikkee di tooñ boppam bokk na ci ci ginnaaw tuuti rekk ñu ngi doon joxe waxtu yu julli fajar ci jàkk yàlla yi mu doon béréb ba yàlla sopp ci kaw suuf si comme na ko yonent bu waxee sallallahu alayhi wa sallam ahabul bilaad alallahi masajiduha béréb ba yàlla sopp mooy jàkk yi nga xamante ne yàlla dong lañ fay jaam kon képp ku yàlla xëy walal nga dox say tànk gannaaw bi nga déggee noddukat bi di yëglu ne julli moo gën nelaw ba ngeen di nekkee képp ku jóg dem remplir lu condition boobu xamal ne bokk nga ci ñi yàlla tagg ci alquran ci ñu joxe waxtu julli ci waxtoom ci njëlbeenu aaya ba nekk ci suratul muminuun waaye képp koo xamante ne dégg nga noddkat bi naan julli moo gën nelaw ba ngeen di nekkee nii nga bañ a dem joxe waxtu wa kon yow dangay bokk ci innal insaan la zalumun far doomu aadama dafa di kuy tooñ boppam saasu ne waaye dadi kuy weddi xéewalu yàlla ba ko yàlla xéewalal yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci jaamu yàlla yal nañu yàlla xiir ci jëf ju baax amin ya rabbal mbokk yi bokk na ci lañu war a tegtaloo ne doomu aadama bi dadi kuy tooñ boppam saa su ne waaye dadi kuy weddi xéewalu yàlla saa su ne moo ne appareil bi ñu naan sama di nopp ba la yàlla créel jox la ko comme cadeau est-ce que yaa ngi ci bàyyi xel noddukat bi la muy wax ngir nga war a mën a am sa première audience ak sa borom bu dee waaw yow yaa ngi bokk ci ñi yàlla tagg ci qad aflaxal muminuun waaw bu dee déet bokkoo ci yaa ngi bokk ci indal insana la zaluman kafar ndax nopp boobu noonu nga di déglu say appel di si déglu say message la ci gën a yey mooy gannaaw bi nga déggee noddkat bi ne julli audience bu njëkk ba nga war a am ak sa borom moo gën nelaw bi nga nekkee nii ndegem yaa ngi déggal woote boobu kon sa nopp bi amal na la njëriñ waaye képp koo xamante ne nekkuloo di appel boobu nekkuloo di déggal woote boobu kon sa nopp bi amalu la njëriñ donte yaa ngi ciy dégg ne waaye kafaar da doomu aadama bi da di kuy weddi xéewalu yàlla ba ko yàlla defal saasu ne bokk na ci moone ne nopp boobu amee tolof tolof dootoo am jàmm waaw xanaa nga jëm jël appareil ya doomu aadama yi di defar nga di ko jëfandikoo waaye original ba tukkee ko fa yàlla bu paanee wala mu am tuuti tolof tolof coow yi bari rek waaye du mel ni comme la mu nekkee woon bu njëkk ba kon ndegem xéewal boobu yàlla xéewalal la nga war a mën a dégg lu ne te boo ko déggee xam ko boo ko xàmmee ràññet la ko te boo ko ràññetlee nga bëgg ko la ci yey nga di ci ràññetle di ci xàmmee di ci distinguer ay affaire waxu yàlla ak waxu yonent bi moo ci gën a ëpp solo la nga war a dégg ci sa appareil boobu di sa nopp su ko defee nga bokk ci ñi sant yàlla ci xéwal yam leen defal nga bokk ci ña yàlla tabal garaat ba nga xamante ne daleen ne ci tàmbali suuratul mu'minuun bur yàlla ne sama jaam yu baax yaa ngi nii ñoo xamante ne maa leen tabal garaat bu toll nii buur yàlla ne ca dëgg dégg dëgg xat géñ na ci sama nguur aflaxa gañe nañu waaw ñii ñooy ñu gañe ñan al muminuun way gom yàlla ñi yàlla ña gañe ña yàlla bëgg tabal garaadu falaax garaadu texe ñe yàlla joxoñ fii ne texe nañu gañe nañu ñi ñooy borom prix yu ngandi ñu gañi piri bu mag di piri bi ngi naan falaax texe fii ci àddina ak ëllëg keroog bés penc ñooy ñan ki ko bëgg a xam topp ci waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi. bur yàlla ne xat gëñ naa. xat ci dëgg-dëgg-dëgg gëñ naa ci sama nguur ne aflaxa gañe nañu almuminuun way gëm yàlla ñi alladina way gëm yàlla ñoo xamante ne bokk na ci seen màndarga fi salaatihim ci waxtu ba ñuy joxe waxtu yu julli xaachiuun dañ ci toroxlu dañ ci ànd ak ragal yàlla gannaaw bu ñu déggee noddukat bi di noddu ak noddu baat yakku composé muy wax màggaayu yàlla di wax ne maa ngi seede ne amul benn buur bu fi nekk di buur di yàlla ko dut yàlla yàlla rekk a fi nekk di buur moom dongoo fi nekk di yàlla maa ngi seede ne Muhammad de dëgg la yàllaa ko yónnee waaye waaye kaay leen ci la leen di texeloo ci àddina ak ci àllaaxira waay waaye kaay leen ci julli ba leen di jokkal seen boroom bu dee jamono buñ doon joxe waxtu julli ci waxtu su niiw ci ginnaaw noddukat bi daldi ci teg ne assalaatu julli xayrun moo gën minal new nelaw bi ngeen nekkee yàlla nee na ñiy dégg baat bi su ko defee ñu jóg di laablu ñu jàpp besel sëq ab jeego jëm bërëb ba yonent bi ne bërëb woowu mooy bërëb bu gënal yàlla ci kaw suuf si mooy bërëb bu yàlla gën a sopp ci kaw suuf si te mooy jàq yi way gëm yàlla yay dégg nodd ñu bàyyi lépp lañu ñu nekkee biro kilim ya ñu toog ñu génn ci kawlal yu nooy ya ñu nekk di tëdd ñu jóg waajalal seen bopp oto yu kilim ya ñu yor ñu wàcc ko daldi yeeslu dox sëq ab jéego jéego yooyu ñuy séq yenent bi nee na wa bi kulli xutuwatin tamsiha ila salaati sadaqa bépp jéego ba jullit bi di sëq di jëm ci jàkka ji sarax la sarax la ba muy génnee beneen xadis ca beneen riwaaya yonent bi nee na bépp tànk ndeyjoor ba sëq ab jéego dañ koy yëkkatil daraja bindal ko yiw bépp tànk càmmoñ ba mu sëq dañ koy faral bakkaar jéggal ko ay rëcc-rëccam ba keroog muy dugg jàkk ja bu àggee ci buntu jàkk ji nag mu daldi ñaan du'a u duxulul masjid mu daldi ñaan wax baat bi nga xamante ni moom la ko islaam jàngalal ne booy dugg ci jàkka ji noonu ngay duggi nga ne wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma iftax li abwaaba rahmatik nga julli ci yonent bi ne maa ngi ñaan yàlla yàlla nga dottili say xéewal ak sa yiw ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma ubbil sa buntu yërmandi ñaan boobu nga ñaan sa làmmiñ moo ko bind waaye salaatu ala nabi ba nga def mooy tampon ba nga cachet ba nga signé cachet bi nga dóor ci lettre bi nga bind sa làmmiñ mooy salaatu ala nabi cachet bi mooy salaatu ala nabi salaatu ala nabi bi nga njëkk loolu mooy cachet bi maanaam danga ngaa njëkk tamponné sa leetar nga doog bind sa lettre de demande waaw nga ci buntu jàkk ji ni bismillah maa ngi tàmbali dugg ci néegu yàlla bi ci turu yàlla nga ne wasalaatu wasalaamu ala rasulillah yàlla nga dottil xéewal ak jàmm ci sa yenant bi allahumma buur yàlla iftah lii ma lay ñaan nga ubbil ma abwaaba ay bunt yu nga xamante ne rahmatika sa yërmande la juróomi yoon ngay dugg ci jàkka ji saa yooyu dugg ci jàkka ji nga ñaan lii wallahi bu la ko yàlla nangulee sa dund bi day doon dundu bu fees dell ak yërmande yàlla ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen ñaan leen ma ma may leen ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma wuyu leen sàkku leen ci man ma defal leen li ngeen tële waaw lépp li ma leen sant li ngeen ci man ci góor-góorlu bu ngeen ko defee la sa des maa koy mottal te bu ma koy mottal bu leen xam nu ma koy mottalee subhaanahu wa moo tax mu ne xaat ca dégg-dégg aflaha texe na gañe na mucc na ñan almuminuun way gom yàlla ji alladina hum ñooy ñi nga xamante ne fii salaatihim ci seen julli yi ñuy julli la ñuy àndal seen julli mooy xaashiun teewuloog ragal yàlla beeg xerewul mu teg si ne walladina hum ñooy ñu ràngoo màndarga joo xamante ne anil laawi muridun saay ñu rombe lépp luy folklore ak caaxaan ak nu mu taar taar taar dañ koy dumuyu ñoom daal saa yu ñu gisee fii folklore fi nekk caaxaana fi nekk la fi nekk du yàlla du yonanti lenn yàlla nekku ci mbumbaay bi muy gis nii lenn yonanti nekku ci mbumbaay bu ñuy gis nii su ko defee muridoon dañ koy dëddu ndànk daal di wéyale seeni dox dem kenn du leen fa gis ku leen fa woo doo leen fa fekk ku leen fay seen doo leen fa fekk tamit moo tax yàlla ne walladina hum ñu teq ñooñu mala la bëgg a wax yow yonent bi gannaaw bu ñu ràngoo màndargaay xushu màndargay ragal yàlla ba ñuy làmboo jamono ba ñuy rencontre seen borom seen audience ba ñuy am seen borom ragal yàlla ba ñuy ràngoo bokk na ci màndargay yi nekk ci ñoom mooy walladina hum ba léegi ñooy ñi nga xamante ne anil laxwi lépp luy xeetu folklore xeetu fo xeetu caaxaan muridun dañ koy dumóoyu dëdd ko waaw ndax julit du fo julit du fo yàlla bindul julit ngir muy fox yalla fooluwul santul kenn di fox waaw bokk na seen màndargay bi léegi walladina hum ñoo rangoo jikko ba mala la bëgg a wax ni yow yonent bi yàlla ni jullit ñu texee ñoo rangoo ñetteelu màndarga yi ba yàlla bëgg a wax yonent bi nga bokk ci ma bokk ci kon nañ leen bokk déglu ñetteelu màndarga bi mooy wan màndarga walladina hum yàlla ne yonent bi ñooñu ñooy ñoo xamante ne li zakatihim azakay alal ba ñu war a génnee ci alal ba ma leen dënk man yàlla faa'iluun dañ koy jëfe dañ koy jëfe waaw hum ñoo ñoo méngoog jikko joo xamante ne li zakatihim azakay alal ba ñu war a génnee seen alal faa'iluun dañ koy jëf waaw dañ koy jëfe de alal ba war a génne seeni azakay alal alal ba ma leen dénk man yàlla azàkk bañ fa war a génnee dañ koy génnee duñ ko lekk te duñ ko bañ a génnee te duñ gis ne génnee azàkk day wàññi alal ñoom duñu gisee noone waaw ñoom saa yu ñu jàppee ne war nañoo génnee yi seen alal dañ ko nan compat ci seen alal ñu génne ko waaw ñooñu ba léegi yàlla ne yonentu bi ñooñu ñoo làmboo jikko ñeneenteel bi ñeenteelu jikko bañu lamboo mooy wallazina hum ñooy ñoo xamante ne li furujihim seen pëy dañ kay wattu xaafizuun dañ kaa garde waaw dañu jël seen bopp garde ko dañoo jël la leen yàlla dënk ci la nekk ci ñoom mu nekk ci partie intimité soxna mari bu dee baat bi noonu la waaw bu dee du noonu ñu ngi jéggalu ci taalu bi nasaraan yi seen parti intimité baleen yàlla dénk waaw dañ kaa garde duñu ko tekki fu ne duñ ko tekki ci ku ne waaw bu dee yàlla nañu yàlla jéggal bu dee mbindunu góor la yàlla daka baaxee mu doon mbindunu góor da koy garde di ko wone fu ne di ko tekki fu ne waaw bu dee yàlla daka baaxee mu nekk mbindunu jigéen du ko wone fu ne du ko tekki fu ne waaw da garde moo tax yàlla ne walladina hum ñooñu ñooy ñi nga xamante ne li furujihim seen parti intimité ba ma leen baaxee bindee leen ko ah xaafizoon dañ koy wattu dañuy wattu seeni pey dañuy wattu seen melokaan ba leen yàlla bindee duñu ko wuññ fu du ku nekk kay gis waaw ah, yàlla ne bu ñu demee ba ñu di ko wuññi bu ñu demee ba ñu di ko tekki ah kañ kay tekkil mooy ña yàlla dogal ñu doon ñu daggan ci ñoom waaw illaa ala azwaajihim la yàlla wax bu ñu demee ba ñu di ko wuññi ñu di ko tekki wala ñu di ko wone wala képp ku war am accès pour gis ko mooy doon ki leen yàlla booleel ci néegu sëy seen soxna yi ñuy gis seen béréb boobe seen parti intimité boobu kenn du ko gis ku seeni soxna tel mag dañ koy wattu di ko garde bu dee soxna si la béréb boobu kenn du ko gis ku dul ki ko yàlla booleel ci néegu sëy mu doon borom këram aw maa malakati aymaanuhum wala ña ko war a gis ñooy ñoo xamante ne ñu ngi nekk seeni moomeel ci jamonoy jaam jamono bu jaam di exister ñooñu de am nañu accès pour gis béré boobe fa innahum gayru malumin yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xamante ne terew ma leen ngir ñu jëfandikoo béré boobee waaye yàlla ne fa bi ibtaga waraa dalik képp ku topp bànneexu bakkanam ci rëdd bi mu ko rëddal nii ne ko sa borom kër moo war a jëfandikoo béré boobe wala sa borom wala sa borom kër moo war a gis béréb boobee wala sa soxna moo war a jëfandikoo borom boobee wala sa soxna moo war a gis borom boobee wala sa jaam bu jigéen képp ku xëtt sart ba yàlla tëral yàlla ne fa ulaika humul aadun kooku moy ko xamante ne jéggi na dayo te kooku mooy ki noonoog la yàlla digle yàlla ne ba léegi bokk na ci màndarga ya jullit yi yàlla tabal garaatu texe wallazina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun ñooñu ñoo lamboo garaadu texe ñi lamboo garaadu texe bokk seen jikkoo lépp li nga xamante moy mooy kóllëre ba ñu wëllëranteeg seeni nawle dañ koy garde dañ koy wottu dañ koy sàmm moo xam kóllëre bi ndénkaane la moo xam kàddu la moo xam liggéey la moo xam diggante employé beeg patron bi la moo xam diggante njiitu réew bi ak ñañu jiite la di hëlante ba jaar ci diggante ñaari kenn ku nekk day sàmm la mu di hëlante moromam buur yàlla ba léegi muy wone ña ràngoog garaadu texe ñamu joxoñal ci boppu saar bi ne qad aflaxal muminuun bokk na si ñu ram garaadu médaayu trophée texe boobu bur yàlla ne walladina hum ala salawatihim yuxaafizuun ñooñu ñoo xamante ne seen waxtu yu julli ya ñuy julli ci bés bi juróomi waxtu ñépp dañ koy wattu yàlla ne ñooñu waxuma ne dañoo texe rekk yàlla ne yonentu bi ne waxu la ne dañoo texe rekk waaye nag ulaika humul waarisuun ñooñu gannaaw texe ba ñu texe fii ci àddina ëllëg bés pénc ñu ràngol leen médaille texe waaye ñu lay def ñu donn waaw lu baax li alladina ñooñuy ñoo xamante ne yarisuuna ñooy donn alfirdaws jannatun firdaws at janna bokk na ci jannatul firdaws boo gisee yàlla tudd fi jannatul firdaws mooy arjana ba kawe ci ardane yi mooy bu kawe ci arjana yi yàlla ne wal alladina ñoo ñooy xamante ne yarisuuna ñoy donnu al firdaws arjanay firdaws yàlla ne hum fiha xaalidoon ñoom de foofu la ñuy sax dàkk kon juróom benn garaat wala juróom ñaari garaat ya yàlla ne ñooñu ñooy ña yàlla di tabal garaat ju mel ni keroog bés ñu donn arjanna kon yow julit bi fexeel nga ràngoog juróom ñaari garaadi bu di du mun a jàppandi fexeel nga rangoog lenn ci juróom ñaari garaadi la mën a yomb par rapport ak sa dundin nga ne man juróom ñaari garaadi ya yàlla tudd ci saar bi am na la ci rangoo nga bàyyi xel loolee mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéen ngi fàttali ko ba léegi ñu ngi tollu ci vacances buur yàlla tabaraka wa mu di wax yonent bi ne mooy may ki ko soob góoru kese mooy may ki ko soob doom yu góor kese waaye mooy may ki ko soob doom yu jigéen kese waaye moom yàlla bokk na ci man-manam ak ci màndargay kàttanam mooy jaxase mooy mélange ki ko soob mu may doom yu góor ak doom yu jigéen waaye bokk na ci man-manam ak ci màndargay kàttanam moom yàlla mooy def ki ko soob mu bañ a am doom ndax yàlla buur la ki xam li tax mu may kii ay doom yu jigéen kese ndax yàlla buur la ki xam la tax mu may kii doom yu góor kese ndax yàlla buur la ki xam la tax mu may kii mu doon ku dul am doom faf waaye yàlla buur la ki xam li tax mu jaxaseel keneen ki mu am doom yu góor ak doom yu jigéen waaye ki ko man la moo tax mu ne lillaahi ñeel na yàlla mulku samawaati wal ard nguuru juróom-ñaari asamaan ci moomeelam la ñu nekk ak nguuru juróom-ñaari suuf ci loxoom la nekk yaxluqu maa yashaa'u mooy bind lu ko soob yahabu li man yashaa'u inaasan mooy may ki ko soob ay doom yu jigéen kese wa yahabu li man yashaau dhukuran mooy may ki ko soob ay doom yu góor kese wa aw yuzawwijuhum zukuraanan wa inaasan mooy may ki ko soob ay doom yu góor boole ko doom yu jigéen wa yajcalu man yashaau aqima mooy def ki ko soob mu bañ a am lenn ci doom faf innahu naka moom yàlla alimun ki xam la muy def la ci ñetti point yem la wax ni walla ci ñeenti point yem la wax ni qadir ki ko mën la tamit ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñuy wax ci maana xadis ne kullu mawludin yulad ala alfitra fa abawaahu yuxawwidaanihi aw yu nasaraanihi aw yu majjusaanihi muttafaqun aley mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot ñu ngi leen di bayloo xel ne ñu ci vacances nañ leen womattu tànk yi takkandeer ba ñu yàlla dénk mu jox ñu ko comme kado mu may ñu ko faf yonent bi nee kado boobu de buy ñëw day ganisee ak leeru yàlla moo tax mu ne kullu mawludin yulad ala al fitra képp ku di tuut di buy gane ci àddina day ñëw ak leeru yàlla waaye nag li fi nekk mooy fa abawaahu ñaari wuy juróomi yaayam ak pappam de ñoo koy doon loo yu xawwidaanihi ñoo koy doon loo mu doon mu lambog jikko yi yahuud jikko yi juif aw yu ñooy def tuut tànk bi mu doon nasara aw yu majju sànni yi ñoo koy def mu doon majuus waaye képp koo xamante ni yàlla baaxee na la nga nar gani si àddina booy ñëw dangay ngay àndiwaaleek la nga xamante ne mooy leeru yàlla bu ne leeru yàlla nag mooy leeru fitratullahi allati fatara naasa alayha mooy leeru yàlla ba yàlla bindu doomu aadama yi mu nekk leer bu mat ba jóge ko fa borom bi tabaraka wa taala yonent bi nee na képp ku góor góorlu ci leer boobu xamal ne mucc nga sa takkandeer bi mucc na waaye képp ku sàggane ba juif yi ñu def ko alyahud responsable bi yow la waaye képp ku sàggane ba nasara bi tamit këf ko def ko mu doon nasara yonent bi nee na responsable bi léegi yow parent bi la kon nañ leen góor-góorlu installé leeru yàlla ba suñu doom yi ganewaale ci àddina ñu jëmbët leeru yàlla ci suñu doom yooyu yàlla may ñu ko nañu xam ne am na koo xamante ni bëgg na ko amu ko kon yow mi ko yàlla wërsëgal na nga góor góorlu leeru yàlla ba mu ganisee àddina na leeru yàlla boobu jebbi fa moom nga jëmbat ko ci sa doom mu jàng alquran jàng doxalinu yonentu bi ak suñu mag ñu baax ñi ngir ñu géema installé jikko yu baax ya commencé disparaître ci suñu société ñu xamal suñu tu tànk yi kenn du tooñ kenn du tuur deret kenn du mel melokaan ba tax nit ñi di la jéppi ki ko yàlla melale tamit bàyyee ko boromam xeetu installation yooyu la ñu bëgg installer suñu génération yi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon wi di ñëw su ko defee ñu installer suñoom ñoom yi islaam valeur bu baax tooñante bi deñ wilipande bi deñ waxi waxi naqasaxanañ yi deñ su ko defee ñu opt jikko ju baax mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñu war a tas xibaar ci nasaraan noo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaj'alana min allazina yastami'una allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wulaata umurina allahumma ya rabbi fadh min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii walakum fi alqur'ani alazim wa nafani llahu wa iyakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu